bay bu ñu jiital li nga xam ne mooy toog waxtaan maanaam dialogue ko njiit réew mi woo na ñi nga xam ne ñooy secteur privé bi ne ma bi ak liggéeykat yi maanaam ngir nag ñu toog di waxtaane li nga xam ne mooy jafe-jafe réew mi ak xool nan la ñu ko lijjantee yéen a kaay gi di réew mi ko di jee nee na yéen a cay ba ñu jàkkaarloo ak président Macky Sall seen kaay de doléance ya maanaam dañoo bëggoon nag li nga xam ne mooy lu jëm ci wàllum retraite bi ñu yóbbu ko ba 65 ans maanaam juróom benn fukkaat ak juróom njiit réew mi di Macky Sall leen wax naan leen bu leen fi yeggale loolee munta nekk ndax askan wi nga xam ne ñoo yeewoo ci réewum Sénégal Sénégal téeméer boo si jël juróom-ñaar fukk ya ak juróom-ñaar ay ndaw lañ yoo xam ne seeni at fanweer la ak juróoma kon nag retraite bi mënuñu ko yokk ba 65 ans ngeen bëgg jël post yu di ko ngar daajoo te an mu jot bëri na ay ndaw yoo xam ne ñoo nekk ci marché bi di wut liggéey Macky Sall na loolee munta nekk xool leen leneen lu jëm ci wàllum yokk salaire gi Macky Sall na xool leen leneen lu jëm ci wàllum buuñaa gi ci courant bi ak njiy ndox mi Macky Sall lànk ba tëdd sa naaj war na xool leen leneen lu jëm ci wàllum wàññi li nga xam ne mooy fiscalité salariale bi Macky Sall lànk kandaare na xool kaay gi ne en tout cas kay dodool ah, sa yi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi jébbal nañ ko Macky Sall keroog Macky Sall ñaxtu yu bare bari maanaam Macky Sall daf koo daal di lànk yéen kaay gi ne na lu jëm ci wàllum autoroute à bi ak wàññi ko Macky Sall yëkkati na ci ay kàddu nee na nag bi ci boppam boo munta jël autoroute bi da ngay dem yoonu Rufisque wi nga mën koo daal di jël Macky Sall ne jaar ci yoon woo xam ne amul paax ngay gunaandaata di dox ma loole nag il faut nga génn nag ab prix nag daal di fay wuute na lool ak nga jaar ci tëli boo xamante ni ay kàmb moo fa nekk Macky Sall ne pataas moo a gënal njàm bi kuñ si tëj sab avocat moo baaxul Macky Sall ne bi waay waaye bu dee dafa cher jaar leen ci yoonu suuf yi Ousmane Sonko ne kàddu yooyu nga xamante ni Macky Sall yëkkati na ko maanaam Macky Sall tegu ko fenn te nag li nga xam ne mooy autoroute bi maanaam wërta cher te Macky dafa war a li nga xam ne maanaam mooy contrat yi li nga xam ne moom la ñu si jot a négocier maanaam Sénégal ci boppam xawma lan lañ def yàlla waaye Sénégal mérito wuñ ki nga xam ne maanaam mooy Macky Sall yéen a kaay gi du l'observateur Macky Sall ne nag bay boo nag ngeen mënu leen a fexe fexe fexe maanaam ba ma fi signé fi ay accord yoo xam ne du ma ko respecté maanaam taxaw di leen gis ngeen di gréw moo ma gënal fuuf ngeen naan ma président Macky Sall yaa fi signé woon ay accord ba pare respecté woo ko yéene kaay gii di Vox Populi ñu xëy fekk fa Guy Marius Sagna nee na kàddu yi nga xam ne Macky Sall yëkkati na ko ci autoroute à péage bi nag dafay firndeel ne maanaam dafa am ay yoon ay yoon yoo xam ne moom la ñu jagleel ñi nga xam ne maanaam ñooy pauvre yi daal ñi ñàkk Abdoul Mbaye ci yéene kaay gi daal di wax ne yoon yi nga xam ne maanaam moo naqari lool te ami yoon ne dafay créer li nga xam ne mooy ay accident te accident yi ñu bari mën ñu see ñàkk seen bakkan kon nag léegi Macky Sall dafa bëgg a jël yoon yi nga xam ne moo ami kàmbu di créer ay accident nit ñi di sa dee Macky Sall yoon yooyu la bëgg jox ñi nga xam ne maanaam ñoom mun ta fay APS bi Abdoul Mbaye ne loolee ci boppam moo tegewul fenn APS bi Ousmane Sonko nee na maanaam APS bi moom képp ku leen wax ne leen APS ñu ko wàññi wax na leen la si gannaaw dëgg Ousmane Sonko nee na APS bi waaye waaye war nañu ko mën te lu mën a nekk la Macky Sall ci boppam la réew la yéen xëy fekk fa góor a xumaa nee na cahier de yi nga xam ne moom lañuy ñuy jébbal Macky Sall loolee la ñu war a bàyyi ndax loolee du solution te loolee munta lijjanti mbir yi góor a xumaa daa di wax ne cahier de doléances yi bu ñu ko jébbalee Macky Sall samedi dimanche boo demee mbëbës da nga ko fay fekk jamono ji nag li nga xam ne maanaam moom la ñu war a def ab grève général loolee rek moo mën a lijjanti mbir mi yéen kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Cheikh Diop mi nga xamante ni moo jiite confédération nationale des travailleurs du Sénégal daan nay wax ne mbasum coronavirus bi tax na lu toll ci quatre-vingt mille personnes ñàkk ñàkk seenum xëya yéen a kaay di réew mi quotidien Cheikh Bamba Dièye nee na politique d'emploi bii nga xam ne maanaam moom la Sénégal di jëfandikoo loolee du mooy solution bi ndax du politique d'emploi bu baax ndax nag munoo nekk ci réew mu mel ni Sénégal te li nga xam ne moo jëm ci wàllu mbay mi amul benn fulla ak benn fayda boo xam ne maanaam daal di nga ko si def munoo nekk ci réew moo xam ne maanaam Sénégal la tudd ba pare wàllum napp gi amul benn fulla ak benn fayda boo xamante ni daal di nga ko si def munoo nekk réew moo xamante ni Sénégal tudd lu jëm ci wàllum sàmm gi defoo ca fulla defoo sa fayda ba pare nga bëgg a taxaw ne ne da ngay créer ay emploi Cheikh Bamba Dièye ci yéen a gi di réew mi quotidien nee njiitu réew mi di Macky Sall au lieu mu dem créer li nga xam ne mooy ay emploi maanaam Sénégal ay pauvre lay créer yéen a kaay gi di Vox Populi collectif ñoo lànk ñoo bañ ci lu jëm ci wàllum parrainage bii nga xam ne waa CEDEAO daan nañuy wax ne Sénégal nañu ko supprimer loolee nag tax na jamono ji daal mënutu da ñàkk Macky Sall organiser li nga xam ne mooy ay élection anticipée collectif ñ lànk ñoo baña nee na Sénégal nag problème yi bëri na waaye nag problème numéro un bi nga xam ne moom la Sénégal am mooy Macky Sall ñoo mënuñoo bañ ñoo ko wax ma ngi ci yéen kaay gi di Vox Populi nee nañu problème numéro un bi nga xamante ni moo am ci Sénégal Macky Sall la yéen kaa gi nee na ñi nga xam ne ñooy cadre APR yi ñoom nag xotti nañ décision bi nga xamante ni CEDEAO jël nañu ko ci lu jëm ci wàllum parrainage bi yéen kaay gi de la Tribune xëy mel ni ku jaaxle ci mer mu gaaw mi nga xam ne moom la Macky Sall di mer ak nag dànkaafuwaate menace yi nga xam ne moom la Macky Sall di def journal bi nee na li nga xam ne kenn mënu koo expliquer mooy Macky Sall buñ ne mbilim la ci rek Macky Sall nekk fii di menacer askan wi ba pare nag di gaaw mer lool